Pape Medoune Sow ñu ngi lay euh, nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay coordonnateur cadre grand parti coalition El Hadji Malick Gakou 2024 gis nañ décision conseil constitutionnel bi nga xam ni itam daan koy jël nii la lépp li nga xam ni li jëm ci toxal élection la euh, li ni mel itam daanako ñëpp a ngi koy waxtaanee yow ban mooy sa appréciation bu njëkk ci wàll wi ni mel. waaw maa ngi maa ngi leen di nuyu yéen waa Rewmi FM di leen. Euh, remercier di nuyu également au seen auditeurs yëpp dama yaakaar ni nuyu la loolu dafa ne dafa amoon lu ñu doon dox mu tudd élection ñu nekkee ba ci biir am lenn loo xam ne daf ko arrêté mu ne loolu ko arrêté baaxul hmm. loolu loolu ko arrêté suñ ko génnee mooy la woon lu fa nekkoon loolu na continuer donc nuyulul dafa ne lu bees luñ ci buggoon a greffé génne leen ko. mooy liñ ci daxoñoon rek. Hmm. voilà li ngeen ci bëggoon a def lu bees génne leen ci loolu baaxul nañu continuer na ma na woon noonu laa ko gisee. da jàpp ni loolu lu jaadu la li ñu li ñuy jël ñoom comme décision. waaw dama jàpp ni que bi ñu gisoon ni que loolu waroon na waroon na mën a jur musiba ñu dem xool seet ci yoon boo xam ni ñun ñii dëkk senegal waa ñun nga xam ne ñun ñoo décidé lan nan la ñu war a mën a demee ci ay élection ba tànn suñu njiit ñun loolu ñoom en fonction de loolu ci la ñu ne ah dara mënu fi su lu peuple bi wax ci tubaab ci nasaraan dañu naan peuple bi moo tënk yoon bu ñu war a doxee keneen bëgg ko ñëw changé mu ne loolu du mën a ne continuer leen donc loolu dafay wane ni que peuple bi ànd di décider lu ñuy décider dara ko mënu ko sut loolu nag ci nasaraan dañ ko tuddee constitution ñoom xool nañu gis nañ ni que peuple bi lu mu bëggoon ñeneen bëgg koo salfaañe nañ ko dindi te bàyyi lu peuple bi wax donc damay rafetlu loolu. ñi jàpp naan décision historique la nag yow loo leen di tontu. alors pour man décision historique waru fi mën a am lu fi am mooy ñun dañuy daje voté ay constitution voté ay yoon am constitution am na yeneen ay lu ñu tuddee ay loi ordinaire am yeneen lu ñu tuddee ay loi organique su fekkee ni dañ ko teg ba pare su fekkee ni loolu dañ ko dañ ko dénk ay nit ne leen de leen ñu xoolal lépp lu ñuy doxal dafa war a ànd ci loolu ñoom loolu lañu def donc loolu lan moo ci historique euh, historique bi war a mën a am historique lu loolu mooy yom loolu mooy démocratie loolu mooy euh, euh, décision bi ni mel oui décision bi ni mel ak décision bi ni mel élection présidentielle yi est-ce que buñ ko jàppoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février yéen est-ce que pare ngeen. waaw xam nga pare moom dangay dem ci lu la tënk balaa ñu doon dem ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février dañu ne woon lii euh, nii la date bi dañ ko dañ ko fixé et dañu leen joxoon yéen candidats yi ne leen balaa loolu comme da ngeen bëgg a jiitu réew mi dañu ne da ngeen mën a def campagne électorale ba wax ak nit ñi wal ne leen euh, lii ngeen bëgg a doxalee Sénégal ñu tànn ci loolu loolu nag ñun dootuñu ko def ndax affaire boobu ba léegi dafa xaw a euh, arrêté su boobaa euh, mun nañu dem élection waaye nag est-ce que dinañu jox euh, sa matériel parce que tey ñu ngi le 16 février ci fukki fan est nit ñi mën nañ ci dox Sénégal wër Sénégal yëpp gox bu ne ne leen ñun suñu projet de société ni ñu bëgg a ñu bëgg a Sénégal nii la loolu mënul nekk matériellement ndax ay nit rek lañ du ñu ay jinne la war a mën a nekk alors kañ lay war a mën a nekk dafa am loolu loolu euh, du ñun ñoo koy décider waaye peuple bi moo ko décider ci ci ci texte bi daf la nekk élection bi dafa am benn article bu ñu tuddee article trente et un bu la ne quarante jours francs au plus et trente jours francs au moins avant l'expiration avant que loolu njiit bu fi nekk luñ ko dénk muy jeex mooy le le deux avril lay jeex war ngeen ci tànn beneen njiit noonu la ñuy fixé date bi donc mu loolu la ñu jàppoon ba fixé le vingt cinq waaye mën na dem ba le trente jours franc au moins trente jours franc nag au moins bi soo ko jëlee dafay tombé vers le trois le trois mars waaye yoon bi tamit def la ne élection dimanche lay ne constitution bi conseil constitutionnel ne la loolu xam nañ ni dimanche lay mën a ne xam nañu tamit ni que yéen ñàkk ngeen temps onze jours yi ngeen préparé yi ngeen waroon a mën a dox Sénégal may naa leen ngeen yokk ko ci trois boobu donc mu doon dimanche yi la dese d'ici le deux avril ñetti dimanche la muy la trois le dix wala la dix-sept léegi yow sooy xool ba na ci gën da war a tànn tamit xam ni que soo jëloon le dix-sept su fekkee ne élection dafa am mën nañu def ñaari tour loolu moo am Sénégal su fekkee da ngeen jël le 17 def ci ñaari tour te deuxième tour bi dafay nekk ñe deux di deuxième dimanche après date élection bi le 17 soo ci yokkee deux dimanche dafay nekk dafay weesu deux avril bi donc dinañuy tombe ci période boo xam ne président bi mandaam jeex na donc passation bi du ko mën a def ndax mandaam jeex na dem donc 17 boobu da nga koy teggi donc lu fi des fii mooy le trois mars le 10 mars looloo tax. ma yaakaar ni que président woote acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo con ñooy continuer élection boobu nga xam ne annulé wuñu ko dañ ko commencé woon waaye arrêté ko pour waa laaj leen entre le trois ak le dix bu leen gënal te xam ni que le trois suñ ko jàppee deux semaines de campagne la ñuy def campagne pour mën a wax nit ñi suñu bëgg-bëgg ci Sénégal su fekkee ni le dix la ñu jël boobu dinañu am vingt jours alors que yoon dafa ne woon campagne war na durer vingt et un jours mën na durer vingt un jours donc nit ñooy xool ban moo leen gën a arrangé waxtaan kenn individuellement ba ñu xam ne ah le trois wala li le dix la ñu jàpp noonu daal loolu moo ko mën a ne. waxtaan boobu yéen da ngeen ca demam. xam nga yow yaa ngi ci biir dama la koy dama la koy expliquer ci neneen match football suñu demee ba ñu match nul ñu war a def prolongation arbitre day woo ñaar ñu doon bëre ne leen léegi kan moo war a jël cas bi wala kan moo war a jël cas bi ñu jaayee kii ñu tiire loolu rek mooy dialogue boobu ñun soo sooy dem foofu loolu la nga war a mën a discuter ñun la trois wala dix ban moo ñu ci gënal suñu laajee ñëpp ñuy jëlee ñu nekk ci ñuy jogante ba xam ni que le dix mun lañu ñu tànn ñu dem ci la dix donc loolu dara ñëw ci waaye bokkul ak loolu ñu bëggoon a def. mooy avant woote benn dialogue boo xam ne day repousser élection ak yooyu yëpp ñun newuñ ci loolu. àndoo leen ci loolu hmm. léegi kon loolu mooy loolu la ñuy woote ñun demuñ ci loolu lu ñuy dem mooy ci le droit date élection bi kan moom ban moo ci war a mën a gën. am na ñenn sax ñu naan est-ce que waruñu ko woon jox beneen personnalité bu neutre mu organiser waxtaan woowu walla président de la république yéen amu leen ci problème. waaw léegi xam nga dafa am loo xam ne. dëkk réew dafa am nu muy doxee fii dañu toll ci benn processus dafa am lu doon dox ñu tënku woon ci ba egg fii kii moo ko war a mën a exercer parce que defar élection dafa dafa am lu mu laaj lu bari laaj na xaalis laaj na alal laaj na disposition administrative affaire weesu nañu loolu léegi lu mën a ne mooy ñu def ji ba pare waa ji nga xam ne moo fi nekk xam nu muy doxee yor xaalis bi pare ko moom mu yeggali ko su ñu paree élection bi après ñu woote waat ne léegi kat ñun réewum Sénégal dañu bëgg keneen koo xam ni war na mën a defar ak élection yi ca noonu yoon euh, bu ñu jëloon pour di defar élection dañ ko bëgg a su boobaa après la ñuy mën a toogaat ñun ñëpp ñu discuter def tënkaat ay yoon yu bees yu beneen élection ñooyu ñun ñëpp tënku ci CEDEAO sax ñoom àddu nañ ci mbir mi ci li nga xam ni itam moo jëm ci élection yi ñu jàpp date ci nu mu gën a itam ñu amal ko ndax am réaction bi ni mel nga doon xaar ci ñoom. waaw CEDEAO il faut que ma expliquer day am na sax loo xam soo koy wax dafay xaw suñu ay loi ak nu ñuy tànnee élection ak yooyu réew bu ne état souverain la moo ko war a mën a xam parce que ñun peuple sénégalais ñun ñoo sut lépp loolu lañ la wax ñoo sut ay CEDEAO ñoo sut parce que ñun ñooy dëkk ñoo bokk ñun loolu la ñu décidé donc ñoom ndegam lu ñu wax mén méngoo na ak lu ñun ñoo ñu dégg ñu xool suñu yoon bi baax na kon te amatul liñ ciy wax ñoom lu ñu wax moom la conseil constitutionnel wax ne nañu def l'élection dans les meilleurs délais waaye bu mu weesu le 2 avril doo rek la mhm. mais gis nañ ni euh, Pape Medoune Sow ñi nga xam ni itam ñoo di euh, société civile bi wala ñu ci bari bokk ñu ngay euh, wax ni wàcc ci mbedd bi la ñuy def Euh, est-ce que jàpp nga ni waxtu bii waxtu wàcc ci mbedd bi la. waaw xam nga sooy wàcc ci mbedd bi xam nga ñun duñu ay xar ñu ay. soo fekkee ne da ngay wàcc ci mbedd kooku dafa bokk ci dañ ko tënk ci constitution ne boo amee lenn looy lu la naqari mën nga génn ci mbedd manifester ko waaye manifestation boobu nga tuddee wàcc ci mbedd hmm. boobu dama leen di laaj d'abord ku ñëw wax ma dinaa ne su may wàcc ci mbedd bi lan lan laa fay lu tax may wàcc fi mu toll nii doon bëggoon nañu wàcc ci mbedd daan nañu wàcc ci mbedd boobu ba léegi parce que lu ñu tënkoon ci élection dañ ko reporté woon te ñun d'accord uñ ci woon waaye léegi loolu réglé nañ ko est wàcc ci mbedd bi pour leneen la wala pour loolu la toujours su dee pour loolu la man dinaa la ne man loolu la réglé nañ ko ba pare mais su dee pour leneen lu bees la il faut nga mën ko expliquer man ma xam lan nga ma bëgg wax lu tax nga bëgg samay militant grand ak ñooñu nga xam ne ñoo ànd ci daaw coalition deux mille vingt la ñuy manifester. kon daal dañ ko teg ci suuf. ah xam nga néew ma nañ ko teg wala nañ ko jël <laughs> su dégg naa nga laaj man loo xam ni baax na ma xam ne lii kat lu yokk la loo xam ne fi dool nii loolu ñu doon manifester réglé nañ ko. d'accord mais wax nga ci réaction chef de l'État président de la République Macky Sall. président de la euh, de la République Macky Sall daf moom xam na ni que ba le 2 avril la nekk président. déggoon nga gars yi naan ko à partir de du 3 avril nekkatoo président donc lan moo ko ci defee fi léegi muy jógee fële moom moo njiitu le pouvoir exécutif boo xam ne moom mooy organiser les élections élection bi moom commencé na ko fi ba pare te le 2 avril dafa war a dem donc war na ko mën a yeggali ci njëkk ba ñëpp gis ci seen bopp en tout cas ñu topp yoon bi ba mu egsi fii yi ci kooku benn la beneen bi lu ko fi defee mooy mu def passation maanaam mu jébbal lenge yi ku bees ku ñuy tànnal ñaar yooyu rek laay xaar ci moom jeex na en tout cas ba ba le 2 avril léegi su ñu passé le 2 avril mu mel ni ak président Ablaye Wade wala président Abdou Diouf ñoom tamit ay sénégalais la moom tamit sénégalais kenn mënu ko génne ci dëkk bi ba su amee lu muy wax ci Sénégal mun na def ay bind wax ak ñu mu war a waxal xelal leen ak ci expérience am waaye ba le 2 avril moom. ñaar yooyu rek la ci mën a def président nekkatul moom moom la ñuy wax warul nekk politicien lu mu war a nekk jiitum réew la jox nañ ko fukki at ak ñaar suñu réew léegi ñaar ñooñu la war a def na jël décret na jël na jël lu mu matuwaay yoo xam ne dinañ dem ci élection ba tànn suñu njiit bu bees njiit boobu mu ne ko lenge yi ñu ma dénkoon am jox naa la ko ci jekk ba pare ñaanal ñu loolu daal la ko fi dese Pape Medoune saw ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo tontu suñuy laaj maa ngi leen di sant man tamit di sant waa réew mi FM nga xam ni ñuy déglu di nuyuwaale ñëpp nga xam ni képp koo xam da nga bokk ci coalition Gakou 2024 boo xam ne El Hadj Malick Gakou moo ko jiite. di fàttali ni yow yaay coordonnateur cadre grand parti nekk itam. li nga xam ni itam mooy coordonnateur coalition El Hadj Malick Gakou 2024. jërë ngeen jëf. 2024. jërë ngeen